salaamaaleykum internet Feeling Dakar li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na si uh, li nga xamante ni moo ñeel Ousmane Sonko ak coowal boobu uh, di uh, Adji Sarr ci noonee nag nañu waxtaanee ki nga xamante ni moom moo di maître Bassirou Balde mi nga xamante ni Pape Alé Niang daal di woon na koy dalal dinañ waxtaanee tamit leneen lu bees loo xamante ni daal na jub ci coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr muy benn doomu responsable bu benn Bokk Yaakaar bi nga xamante ni daal mbir moomu lay dinañu wax tamit ci ki nga xamante ni moo di balaa Ballago sekk mi nga xamante ni mu ngi wàcc euh, concert am bi mu war a amal foofa ca Gambie dinañu wax tamit ci li nga xamante ni moom moo di ñaari euh, faits divers yoo xamante ni nii daal dina doy wax torop xibaar yi nag moo koy feggoo ak ki nga xamante ni moom moo di Fatou Ndoye mbokk internet yi lii moo gën a fës ci bopp xibaar yi ñëw ci yàttal gi salaamaaleykum internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm comme ni leen ko waxee woon ca njëlbeenu xibaar yi dañ koy euh, doore ak wàllum Ousmane Sonko mi nga xamante ni nag tey daal dina fës lool ci actualité yi dañ koy euh, dooree nag ak euh, maître Bassirou balde mi nga xamante ni nii moom mooy avocat wu Khady Ndiaye Khady Ndiaye nag moom moom moom institut de boobu boobule. ci noonee nag moom Pape Alé Niang daal di woon na koy dalal ci émission boobu di autour di micro. moom nag euh, ci lu mu wax bokk na ci euh, mbir Khady Ndiaye moomule moom euh, dafa daal di feebar doomam feebar ba noppi moom sax daal na wax ni que moom Khady moom moomule dafa daal di accoucher le 31 décembre bi ñu génn muy 2019 bi mu daal di nekk nag liir boo xamante ni dafa daal di prématuré ci noonee sax lañ ko daal di yóbbu ci hôpital bi nga xamante ni moom moo di Albert Royer moom nag doomam foofu la daal di nekk ba tax na sax médecin bi daf ko daal di hospitalisé ak doomam ndax nag doomam euh, daf ko war di jege à chaque fois ci noonee nag moom euh, maître Bassirou Baldé lu mu daal di xamle rek moom moo di euh, lii di procureur bi ak commandant bi gannaaw ba ñu convoqué woon ki nga xamante ni moom moo di Ndeye Khady moomule euh, ci noonee nag lañ ko daal di gëtam daal di bëgg rek ngir mu dellu si ci li nga xamante ni moo di kàddu yu mu yëkkati woon ba presse bi jot si moom nag li ñu bëgg rek moom moo di moom mu daal di démentir information yooyu nga xamante ni moom Khady daal di woon na koy joxe maître Bassirou Baldé Balde mi nga xamante ni moo di avocat am nag neen nag loolu du dëgg du yoon dañoo wax bàyyi ki nga xamante ni moo di clientam mu wax li nga xamante ni moo di mbir yi nu mu demee. bu ñoo jógee foofu ba tey dañuy desandi ak li nga xamante ni moom moo di coowal Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di ah, ndaw soosu di Adji Sarr ci noonee sax euh, gannaaw jàmmaarloo bi nga xamante ni daal di woon na am ci diggante takk der yi ak ndaw yi nga xamante ni ñoo féete euh, ci Ousmane Sonko ñoom nag euh, daal di woon nañ leen yóbbu fi nga xamante ni moo di ci hôpital CTO gannaaw ba ñu amee ay gaañu gaañu ni ki nag moom Ousmane Sonko daal di woon na leen dem seeti ngir nemmeeku li nga xamante ni moo di seen état de santé. buñ fa jógee tamit dinañ wax ci ki nga xamante ni moo di benn doomu responsable APR bu nga xamante ni daal di siiwloo lool euh, moom nag moo daal di jële fi nga xamante ni moom moo di Adji ca institut de boobu daal di koy yóbbu mu ñibbi ci guddi googu nga xamante ni nii sax euh, ci lañu euh, tuumalee Ousmane Sonko ni ko dafa daal di sàkku moom Adji Sarr moomule ci noonee sax doomu responsable benn Bokk Yaakaar boobu mu ngi wéy ci turu di Ahmed mbay ba tax na moom euh, Sidi Ahmed mbay moom lee gannaaw bañ ko euh, dégluwoo rek lu mu daal di xam ne rek moom moo di aji Sarr nag wëllëreem bu yàgg la looloo waral mu daal di koy euh, dem jëli fi nga xamante ni moo di ca institut de beauté boobu ñoom ñaar nag xamante nañ ça fait des années ci noonee nag ki nga xamante ni moom moo di Yakham mbay moom nag lañ daal di joxoñ baaraamu tuuma ni moom moo daal di nekk ci ginnaaw mbir moomu moom nag Yakham mbay nekk directeur général bu yéenekaay bi di Le Quotidien ci noonee nag moom Yakham Mbaye jamono ji nag euh, dañoo daal di jël ay këram daal di koy euh, mettre sous haute surveillance euh, ci noonee moom Yakham Mbaye jamono ji nag boobu ba tey ba coow li jubee waxu ci benn yoon la ba tey bu ñu desee ci li nga xamante ni moo ñeel Ousmane Sonko moom li sax moom ni ki démb tamit daal di woon euh, recevoir li nga xamante ni moom moo di euh, kilifaam fa nga xamante ni moo di ci këram di euh, cité kër góor gi kilifaam boobu nag di woo ci turu Serigne Abdou Mbacke bu Daaru Musti moom nag daal di woon seeti ki nga xamante ni moo di taalibeem di Ousmane Sonko. ba tey ci wàllum Ousmane Sonko nag kii di El Hadji Mansour Diop nekk journaliste foofa ca euh, des médias moom nag daal di woon na ci àddu daal di def benn vidéo di wax nag ci li nga xamante ni ni moo di mbiru Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di Adji Sarr di wax nag ni que mbir mi dafa daal di doy waar lool yaa di euh, def ay révélation sax euh, dañuy daal di déglu rek benn extrait ci li nga xamante ni moom moo di kaddu yi El Hadji Mansour daal di woon yëkkati. mbokk ñi seetaan salaamaaleykum. dañu am rek ay quelques questions yu simples yu ñuy poser par rapport ak accusation bu Ousmane Sonko bi ñu ko tuumaal ci ni def doon violé ci salle de massage bi ki moom salle de massage bi def ni ñaari xale yi jigéen ñoo nekkoon ci salle de massage ba ñoo monté woon war a liggéey pourquoi kenn rek massé Ousmane Sonko ki ci des anamu lan moo tax kooku génn lan la planifier ak ki ci des ba tax mu génn. question la bi ci des mooy Adja Sarr lan moo tax ñi violé ko benn yoon ñaar yoon ñetti yoon ñeenti yoon juróomi yoon mu soog a dem di ko dénoncé muy ñaar ñetteel bi lan moo tax bi ñu ko jëkkee viole waxul ki moom salle de massage bi viol bi am alors toujours moom elle préfère masser Ousmane Sonko ñett ñeenteel bi mooy bruit boobu yëpp nan la mën a amee ci kër gi ci moment bi nga xam ni ay vingt une heures vingt deux jëkkëru borom salle salle de massage bi mu ngi ci kër gi borom salle massage bi mu ngi fi ak ay njabootam amul benn bruit boo xam ne am na te ñu ni viol la bu fekkee Ousmane Sonko dafa yor ngànnaay comme ni ko ndaw si waxee mais lan moo tax bi mu génnee dénoncé wu ko ca viol yu jëkk ya ñeenti question juróomeel bi mooy xale bi vingt ans la am lan moo tax nanguwuñu wax de d'étude bi nga xam ne am na ko parce que li tax ñu wax niveau jàng bi mu am mooy façon bi mu bind plainte bi alors ci même date bi le bi ñu ko violé le bind plainte bi mais defaale ci xeetu article yi nga xam ni moom la ñu a jëfandikoo ci mu sàkku ñu toppee ko Ousmane Sonko ci wàll yoon <laughs> kan moo nekk ci ginnaaw forcément ñu laaj question boobu kan moo nekk ci ginnaaw. kan moo ko ko bindal plainte bi ci guddi gi kan moo ko ko tàppeel rédigé ko ko ba mu normal mu tiire ko imprimanté ko pour mu déposer ko xam nga euh, yooyu yëpp boo ko dajalee dafay nekk ay question yu war nañ ko leeral. mu ngi noonu kàddu yooyu nag la ki nga xamante ni moom moo di euh, El Hadj Mansour daal di euh, yëkkati ba tax nag ki nga xamante ni tamit moom moo di euh, Moustapha Guèye Tigre bu Fass moom tamit daal di woon na dem ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko daal di koy seeti ba tax na tamit dañuy daal di teewlu tamit benn extrait bu ndaw ci visite bi nga xamante ni moom Moustapha Guèye daal dina ko yoon def jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ba noppi sax moom daal dina koy xamal rek ni que moom wéetul benn yoon ci li nga. xamante ni moo di combat boobu ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaawam. suñu bopp ci yëf yi ñoo bëgg a di ko xamal ko combat bi di ci wéet na ci ànd ak sénégalais yi na ci ànd ak africain yi na ci ànd ak le monde c'est ci li nga xamante ni moo ñeel mbirum Ousmane Sonko nag dañ koy daal di tëjee ak magistrat bi nga xamante ni moom la procureur de la république daal di dénk dossier bi moo di euh, maître euh, Mamadou euh, Seck mi nga xamante ni moom moo di juge bu huitième bi moom sax maître Mamadou Seck dafa daal di ñàkk waajuram bu góor ni ki démb foofu ca Tiwaawoon ba tax na sax waajuram boobu daal nañ koy denc foofu ca Tiwaawoon équipe bu Feeling Dakar bi yëpp di jébbal njaalam ki nga xamante ni moo di maître euh, Mamadou euh, Seck moomule ci ndoonee sax euh, ñu fàttali leen rek ni que moom maître Mamadou Seck moom lañu ñu dénkoon dossier bi nga xamante ni moo ñeeloon affaire Iba Thiam nga xamante ni daal di woon nañ ci teg loxo Dame Amar ak ay ñoñam dañuy daal di euh, dugg nag ci li nga xamante ni moom moo di euh, fait divers ak euh, Fatou Ndoye fait divers bu njëkk bi nag nekk na benn moodu moodu boo xamante ni dañ ko jàppee ci hôtel Radisson mu daal di yore quantité drogue bu bëri Fatou Ndoye. salaamaaleykum internet Feeling Dakar ñu wax ci immigré bi nga xam ne mu ngi wuyoo si turu MCC ñu jàppee ko fële ci hôtel Radisson fekk ci moom nag quantité de drogue bu important moom nag ñoo ngi fekkoon ak moom tamit ki nga xam ne mooy fournisseur am. ñu dugal drogue bi ci seen kawas mujjee nañ leen nag jugé ki nga xam ne mooy émigré MCC moom dina tëdd li euh, atum yàlla kaso fournisseur am bi nga xam ne moom la àndaloon ci biir oto bi tamit moom tamit daan nañ ko ñaari atu kaso dañuy wax tamit ci beneen fait divers boo xamante ni daal dina am muy benn ndaw soo xamante ni nii moom nag dafa daal di wax rek ni que rakku jëkkëram moom moo koy topp di ko harceler di ko yónnee ay euh, vidéo yoo xamante ni nii daal dina doy waax lool moom nag looloo waral mu daal di def benn audio rek di wax li nga xamante ni looloo ko métti di sàkku ndimbal dañuy daal di teewlu euh, boobule audio. ban kaala bàyyi bi fi tere démb daa bari de ban la. bi. xale bi toog femme bi doon doomu doomu mag ji doomu doomu jëkkër ji doon doon harcelé noonu noonu. bi ñu génnee waa woowaat femme bi ni ko nag leen lañ mën a def ginnaaw munoo yenn yi soo ma yabalee ma def ko ma wax ak sa jëkkër mu wax ma fi ñu dëkk ndekki soriwul ma doxantu fa ànd ak sama benn xarit waxtaan ak femme bi pare mu ne sama jëkkër dafa génn li telle heure lay ñëw ñu delluwaat fa fekk fa jëkkër ji. ma woo ko ni ko man la Ndoye Bane dama laa soxla mun na Ndoye Bane yow koo woo day tiit de mbaa jàmm man ko jàmm la rek dama laa soxla mu ñëw ñu génn man toog waxtaan ak moom man ak moom ak jabar ji jabar ji génne preuve yi expliquer lépp li mu expliquer ci rajo bi ñun ko nag sa jabar ñëw na ci rajo wax na mais kenn xàmmewu ko dañoo changé voix mu ne man déglu xalaas bi mais musuma xam ni sama man sama soxnaa doon wax man ko moo doon wax mais jaaxlee tax mu ñëw ci rajo bi ñëwul ci rajo bi pour siiwal lenn wala ne muy dafa jaaxle. Mhm. léegi nag nii nii la demee tegal ko ojo yi doom ji yëpp ak vidéo yi ko jabar waa ji waaru man ko nag lii du lu ñuy yëngal su fekkee bëgg nga sa soxna te bëgg ngaa sauver sa sëy et lii da nga koy régler ci suuf. Mhm. régler ko te kenn du yëg. ci saase mu woo doom ji doom ji góor ji waa ji ñëw. gis ma dama na nga def sawaab mu xew mbaa jàmm ñu expliqué ko. booy bi soo ko doon estimé ñaata at nga koy jox. booy bi war na am ay trente ans trente. trente ans trente yooyu noonu. ndaw see ko xaw a mag. Mhm, mhm. léegi nag mu expliqué ñu tegal ko audio yi weddiwul dara. Hmm? lu dul toog di jooy naan maa ngi jéggulu papa maa ngi jéggulu maa ngi jéggulu papa ji takkal koy bagaasam. génne ko kër gi nee na daal am na fu mu koy yóbbu fii ci dëkk bi foo xam ne feneen foofu nga xam ne këram la fa la ko yóbbu jox ko fa mu néeg mu jéem a liggéey te takki jabar. Hmm. waaw fu ma ànd ak papa ji. léegi papa ji nee na ma. Mhm. am na leneen lu mu mus a def lu li tax miimulu ko ko am lu xale bi mus a def. ba mu nekkee booy. wàllum euh, tàggat yaram ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Fatou Ndoye. xibaaru sport yi ñoo ngi koy dooree ak joueur brésilien boobu di Neymar di évoluer fële ci euh, Paris Saint-Germain ginnaaw ndam ñu am ci kaw camp moom nag dafa jëlee ay gaañu gaañu bu métti ba tax na staff médical bu Paris Saint-Germain ñoom nag ñoo ngi am ay jafe-jafe pour wax ndax Neymar boobu dina mën a wutale lii nga xam ne mooy huitième de finale Ligue des champions bu war a am talaata bi di ñëw diggante ak ak Barça suñu jugee foofu nag dañuy dem ci attaquant sénégalais bi di Mbaye Niang moom Mbaye Niang boobu di évoluer fële ci stade ren moom dañ ko abal club saoudien bi di euh, Dal Ali euh, pour mu jeexal foofu saison bi. ñu wax ci meilleur buteur euh, championnat sénégalais saison bi ñu génn di Ahmadou Bamba Dieng bi nga xam ne moom di mu wane na boppam ginnaaw jàmmaarloo yu amoon ci diggante Olympique de Marseille ak Auxerre ñu mujjeeka gagné but à zéro grâce li nga xam ne mooy bii bu mu dugal ci quatre-vingtième minute bi. bi la dugal deuxième bi nga xam ne moo tax Olympique de Marseille am ndam. ci kaw Auxerre moom nag dafa dugg rek wane boppam si euh, jogante boobu rek. ñu jeexalee actualité sportive yi résultats yi nga xam ne démb nemmeeku nañ ko ci diggante. ki nga xam ne mooy Paris Saint-Germain ak Caen Paris Saint-Germain mujjee ko dóor si euh, euh, diggante de 1 but à 0 ñu Everton dóor kii di Tottenham de 5 but à 1. kii di Séville dóor Barça ci 2 buts à 0. dañuy jeexalee xibaar yi ak actualité people wax ci ki nga xamante ni moom moo di Wally Ballago sekk ak waajtaayu euh, concert bi nga xamante ni mu ngi ko war a defee foofu ca Gambie moom nag Wally Seck daal di woon dajale li nga xamante ni moom moo di euh, comédien yi mu nekk nag loo xamante ni nit ñi daal nañ koy rafet lu lool euh, comédien yi ku ci mel ni Baye ak li ni mel ñoom ñëpp daal di woon nañ fay teew ngir waxtaan ak ki nga xamante ni moom moo di Wally Ballago Seck Seck dañuy daal di teewlu boobule vidéo. Nguudu doon na ah. xoolal. ma ma am ci lii rek yóbbu ko Mbabar. ne Youssou Dieng Youssou Dieng Youssou Dieng nii ma nii la ma faral lépp def. Mbabar bii di ñëw. ah ñooñu ñooñu ñëpp Mbabar. ñooñu ñëpp Mbabar man ma ko Aliouma Diop. waaw loolu wax na ma lool nee na ma. sama kooku rek la mag eh, la. waaw noonu la. soo yaa jàmm waay. Ah. Ah, ah ah ma sub dijo ma. ah. garab dama dem ñu ko wa léegi internet yi ñu doon bàyyi xel fii ci Feeling Dakar cant ak ngërëm ñeen na leen leen indiloon ci ay xibaar ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig dajeex ëllëg ak jàmm ci fi leen xibaar